amaa nee na jekk na nee na moo ko fa teg da koy jël incha allahu rabbi kan mooy Ama Balde. Ama de nit ku la. Mhm. maa ngi loolu lañ hmm. mhm. nee na moo ko teg la koo jël de. waaw waaw ñun de nag loolu teg jël waaw. Hmm. yaay booy tey su la doon laaj kan mooy Ama Baldé sa doom parce li ñu koy wax lépp bari na mooy ku bëgg yaayam la. man man baat boobu laa fi dégg Pikine tey. loolu am na. Hmm. ku bëgg yaayam la. maa ngi ñaanal yàlla rek. Mhm. su bëgg a egg rek yàlla na ko fi yàlla suñu mhm. sa ñaari doom war a daje Gambie ñu ci bari yaakaar ci fair play mu bañ a am benn coow tey boo amoon kaddu boo leen dénk pour que ñu def signature bi face to face bi ci jàmm bëri ci jàmm. jàmm rek jàmm rek fi mu ji ñaari xale rek lañ. Mhm. dañuy ànd foree rek làmb for la rek yàlla na leen ci rek. amiin euh, Doudou mu ngi noonu. waxoon naa leen ko. man buur ne woon naa leen bu mu jugee dëkk bi yëngu ah. tey maag du ànd dem Pikine Ama Baldé génne slogan bu bees tàq mooy maa ko fa teg dama ko. Baldé moo ma ko wax ñoo nga gëm ñoo nga jëm Mariama Teel nii Gambia le 16 ak le 17. waa Pikine ni koy waaje ah le 16 <laughs> ma ne ko le 16 ak le 17 moom du yomb waa Pikine moom dara du leen bett. Mhm. su jeex na ñun daal dañuy préparer lépp toog. kon Modou Lo foog xiir gi dal ko. foog caw bi dal ko moom Modou Lo moom du mucc mukk ci waa Pikine mënut a de. Samba Dama li nga wax ne foo ko teg. laa ci fu leer laa ko teg. Hmm. ah waaw bi rek. day ñib si Pikine incha allah rabi incha allah. en tout cas roi des ah? ma ne la roi bu dajeeg roi kay da métti de. tey su la laaj Ama. Hmm. su ma doon laaj madame Senghor kan mooy Ama Balde. Ama Balde boo ma ko laajee dinaa ci sawar wax. gis mhm. bi may ñëw Pikine fii boobu xale ndaw la. Mhm. boobu ay sept ans huit lay am. Mhm. parce que man depuis quatre ba léegi maa ngi fi. kon xam naa lu bari ci Ama. muy xale bu yaru xale bu bëgg yaayam bu bëgg ay dëkkandoo woon. léegi rek fii la taxaw di ma tooñ ba ñu koy reetaan. xale bu baax bu am jom bu toppatoo ay waajuram toppatoo waa kër gi bu baax a baax dañ koy faral di tooñ chaque jour naan Ama leen dafa tabe dafa tabe quoi trop. duuru xoolal Ama mooy gën noonu a ah voilà. waaw eh, pël bi nuyu naa la ñoo ngi ci Mariama Senghor ah. maire 10 ans. nuyu naa la waa Senghor Senghor. day def ci yow ñaas bu am solo maire 10 ans. léeg moom nee na. nee na bi muy ñëw moom bi muy ñëw fii 96. nee na xale bu tuuti nga am 7 ans. nee na li mu xam ci yow. nee na ku yërëm sa yaay nga ku ko toppatoo nga ku ko jàppale nga ama le 16 le 17 ñoo nga jëm Gàmbi nu ko sël bu ndaw di waaje waaw ñu ngi ziar rek ñu ngi ziar nuyu àdduna di nuyu ñëpp di nuyu sénégalais yi nuyu monde entier ñu mhm. ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg ñu mhm. ñaan yàlla na suñu borom defal ñu nawet si jàmm waaw du ñaan yàlla yàlla suñu borom def jàmm di ñaan lépp loo xam ne promoteur bi bëgg na ko rek yàlla na ko suñu borom def waaw di naa di woo waa Gambie yëpp di woo suñu fans club bi nekk Gambie Jules Baldé moom nee na yéen a moom Gambie waaw di woo suñu fans club bi nekk nekk naa mhm. yëpp mhm. waaw nan lañ préparé suñu fans yi ebe mhm. xam nga waa fans ak naan mburu waaw ak naan mburu yaa ma a xam di ñaan yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal gars yi nee nañu Modou Lo li muy bañ a dégg mooy ah maa yee loolu lay bañ a dégg waaw dañuy ñaan rek yàlla nañ si yàlla fekkal jàmm di woo ànd na comme euh, jamono yi dañuy woo Sénégal pour ñu mobiliser. Mhm. pour signature ñooñu woo ñëpp di woo. fan si Modou Lo yi mhm. di woo sama fan waaw ne boo gisee ñu def ko ñu yóbbu ko Gambie mhm. pour fair play la fair play effectivement li amoon bañ a am quoi lu amoon bañ a am na ah. ko dem muy Gambie mhm. dañ fa wane fair play wane fa jom wane fa fulla wane fa yàlla yàlla na fa ah, jàmm yàgg bëgg li ñu fa xaar yàlla nañu fa fekk drapeau président Adama Barrow la waaw waaw di ah, yàlla suñu borom dafa ko jàmm Ama fan nga jóg lan la Ama foo teg sa tànk waaw foo ko teg sama jàmm rek kon lu ne la waa Pikine maa leen woo ñu. yaa ma ne woon kër Thierno ba avant sa ma ko sama dee leeroo ma dee dem àjjana. waaw loolu fan la Ama Baldé teg teg loolu. fan la ko tarbiiru. da nga ko tarbiiru. waaw loolu dama ji day tëdd. non ko tarbiiru loolu. loolu kon xa kon ñuy wax maa ko fa am. yaa ko fa am. waaw maa ko fa téye. loolay solo solo gaa bees mi. maa ko fa am maa ko fa téye. waaw ok Madiama loo <laughs> gonde bayar wanga gimele ama balde yal e golle gimi dume ari dagwa ngel pikine gonde bayar wanga gimele ama ah, balde yal golle gimi dume gari dagwa ngel pikine le roi des arènes celui qui est le roi des arènes barki rasulullah <laughs> moo ngi noonu Doudou gis nga gars yi ama dégg nga li mu wax slogan bees la génne mooy maako fa teg dama koy jël loolu dafa leer foqati la hmm. foqati la loolu mooy foqati mu neex ko ak mu naqari ak mu dañ koy foqati roi fii la jëm ay wax day jeex nee na moo ko fa teg da koy jël. amaa waxoon moom nee na moo ko fa teg da koy jël. mooy doomu alaaji daf ko fa dégg mooy ndew coppati ni donc mooy lengs piko paako merci nga ni mooy lengs lengs piko paako lengs piko paako gambe yi ñoo koy woowee loolu lengs piko paako gambe yi ñoo ko wax gambe yi ñoo ko tuddee te gambe lañ jëm merci gambe ngeen jëm gambe lañ jëm am ndam ñibbisi waaw ah, Adama Barrow kontaan Macky Sall kontaan monde bi yëpp kontaan ama du may sa waay dara. du ko may fukki dërëm. fukki dërëm xolli du gerte du ko ko may. ama duudu gis nga ñoo ngi pikin moo ko fa teg jël amaa slogan maa ngi koy soog a dégg nee na moo moo ko fa teg da jël. mais loolu dafa leer. Modou Lo suñu alal la la yor. voilà seen alal la téye. suñu alal la jël te da koy delluwaat par force. taa nag ñu ngi koy seeraat nekk si réseaux sociaux yeeg di nder nder nder nder ndaar ay mbër kii yooyu ñun leen diwuñu ko saa yoo pare ñoo gën a pare foofu mënul am dërëm si Ama lu leer laa la wax. mais man fan la teg tànkam lan la. mais fu wóor rek la ko teg Ama kuy ànd ak moom xam ni Ama gaayan pare. waaw njëkk naa ñoo ngi fi yéen a ngi fi te incha allah le 5 ñu may dara Modou Lo. le 5 may dara Modou Lo salaamaaleykum. soxna si amaa nee na jekk na nee na moo ko fa teg da koy jël incha rabbi kan mooy Ama Baldé. Ama de nit ku mhm. sama mbokk la yaay mhm. bi sama yaay la sama xarit la. da mhm. ko jëlee loolu lañ